ñun bi ñuy jóge fii ñu ngi doonoon quarante et un personnes vingt neuf moo dax la na ñu ci des ñu may wax ñu ngi nii ñoo bokk gaal ñii di dee ñu leen di gis nii jaxran man su ma fekkee li may wax waxuma dëgg am na ñu may témoigner ñu ngi fii ñii dee nekk ci gaal gi ñaari fan ñu xam ne lii mi ngi bëgg ëpp loxo ñuy sànni sa moroomu jullit koo xam ne nii yéen a nekkandoo woon mu dem ba dem ngeen toog nii dem ba kii xiif mar rafle toog ñetti fan xaw ma ñeenti fan yoo xam ne lekkuñu naanuñu kenn xamatul lan la ñu nuuru yow da ngay dem ba xam ne li ngay def nii ay milliards yi jaru ko lu àdduna li ci biir jaru ko te am na si ñoo xam ne nii ñoo àgg Espagne di vidéo di woote naan gaa yi ñëw leen ñëw leen fii dara nekk fi ñooñu ñoo andi affaire yi mhm. ñooñu ñoo war a wax dëgg te waxuñ dëgg mhm. man nag li may wax nii bu doon sama sago. média laay dem. parce que damaa yor ay preuve yoo xam ne nii tele bu ko amoon boo ko lancé déggoo li ma la wax de. ku ko dégg wala ku ko gis dina xam ne nii lii c'est la vérité te man am naa possibilité taxaw wax. génn samay preuve ne lii maa ko enregistré lii maa duggoon ci gaa yi lii maa ko fekkee. maa ko teewee déggoo li ma la wax de. 41 personnes nga teer 29 personnes dax la na ñu si des dañoo sànni ba sonn dañoo sànni ba sonn. barki alxuraan barki Serigne Saliou nga dem ba xam ne lii dara jaru ko am na ñoo xam ne bi ñuy dem tàgguwuñ seen waajur am na ñoo xam ne bi ñuy dem seen waajur ñoo leen jox paas am na su ñoo xam ne nii seen waajur amaana sax dañoo jaay seen matériel dem te à cause li ñu li ñu yaakaaroon nekkut Europe man def naa fa soo déggee ma ne la man damaa war a wax man def naa Europe damay wax espagnol comme ni may waxee olof mais ku yaakaar ne Europe dangay dem rek tibb ñëwaat nax nga sa bopp. gars yi dañu war a toog ñi nga xam ne nii xamuñ luy ndox xamuñ li nga xam ne mooy yoonu géej bi ñu wax leen risques yi si nekk wax leen moor yi si nekk wax leen ñi nga xam ne nii maanaam dañuy dem di tayli seen bakkan te dara dara dara dara jaru ko ci àdduna boo toogee fii nag ñu lay expliquer naa la yoon bi nii nangam ak sàngam wallaay la azim dañ laa waxul li ci nekk mais xam nga ne ku toog ñetti fan lekkoo naanoo di daw daw boo xam ne xamoo foo jëm ñun bato yi ñu romb bato ci romb di la ñaan doo ñu sax nangoowuñu parce que à cause de ngelaw ngalaw ñu tëmbee ba ñu teeree ngelaw moo ñu sonal ñi dee ñëpp da ngay gis koo xam ne nii da ngay dem ba mën a toogamun parce que bu yàqoo ci gaa yi da lay sonal te mën naa rey ñi si nekk nga jël ñaanal ko sànni si ndox mi dawaat tuuti gisaat keneen ko wàccaat nga jëlaat sànni ci ndox mi te ñi nga xam ne nii ñooy tëgg gaal yi ñoom duñ sax yéeg ci gaal bi capitaine yi nga xam ne ñoom ñooy tëgg gaal yi di gaal yi duñ yéeg si gaal yi yàlla xam na li may wax nii at yeneen tibeeg sëñ Touba man mii di wax ak yéen damay dem géej moo laa mais ci sama àdduna dara jaral tuma dara jaral tuma may dugg fii naan damay dem Espagne te pare naa pour liggéey pare naa pour jàppale képp koo xam ne nii rek da ngaa bëgg pour ndaw ñi retourner pour toog man am naa preuve te xam naa fu ma leen war a jaar. te li may wane ku ma ko wan di nga toog boo bëggoon dem sax ci avion sax di nga toog Europe neexut li ñuy daj Europe buñ ko buñ ko toogee fii jaayandu ko fii. barki Serigne Saliou dañ ciy génn waa dax la def nañ luñ man parce que xoolal mbooloo mi boo demoon nga xool la fa nekk kenn xamut nu mu toll chaque jour nga bëgg leen jox añ reer ndékki ah ci dëkk boo xam ne yow da ngay nangam ak sàngam kenn xamut waaw ñun ñun ñun ñun dañoo war a sant yàlla donte ne nekkin bi sax gaa métti na parce que bañ fa demee ba léegi mosu ñoo naan lu tàng mburu lañ ñuy jox meew ñu ngi koy sante yàlla amuñ ko woon ci gaal gi. amuñu woon ko amuñu woon ci gaal gi loolu gaal gi gisoo ko la may mburu gisoo ko la may ndox kon boo teeree gis ku lay jox meew ak mburu sante ko yàlla te kenn warul jàmbat sama gaa yi dañuy toog sax ñu naan nanga man leen sant leen yàlla xool leen ñu sànni si géej gi man mennu man maa fa yoroon téléphone piis piisu marocain ndax biñ teeree gaa yi dañ doon lijjanti ay ndox ay lekk ay nanga man xam naa ne buñ jógee fii dañuy tëju am na benn benn naar buñ naan Assane moom laa woo ne ko Assane ñun dañoo bëgg woo suñ famille parce que am nañ six jours ci tey te buñ fekkee dañoo yóbbu fële tëj ñu rek duñ duñ mën a déggante ak suñ famille ma dimbali nga lijjantil ma piis moo ma lijjantil piis fi ñu nekkoon yëpp mel na man maa fa yoroon piis képp ku dégg sa famille à cause de boobu moo tax nga dégg sa famille ñii dañ leen woo ne presque fàtte woon nañ leen am na ñoo xam ne dañ leen doon nëbbu koor yi di leen nëbbu koor yi ba seen fami ñoo woote nee ñu wax leen ñu dëgg ji ñu ñu ñu ñu jéngu wax leen dëgg yi ne leen ah diw de mu dinaa des si géej gi ñoom ñu nangu ko mais comme li ma la wax am na su xam ne seen koor lañ doon laaj ñii ñu ne leen koor yi yii na si géej gi yii daal ci ci hôpitalu Daxla bi lañ lañ lañ wàccee waaw mais comme li ma la wax sama téléphone moo fay mais yaay boobu fayoon dama lay génne lépp wan la non non c'est bon on va le faire après. kii wàcc am na si koo xam ne mi ngi fii tey wàcc na ci koor yi la bokk maa ngi moom fii. kooku dafa karambu sonn na mar na ba bi muy wàcc maa ngi koy caméra billaahi wallaahi tallaahi ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne nii man mënumaa toog di ko wax mais pour lépp comme ci li nga wax rek ñi nga xam ne nii dañoo def seen xel dem as parce que am na ñoo xam ne ba léegi nii pareegul ba léegi seen xel mi ngi si Espagne mais autorité bu boo waxee Macky Sall bu waxee keneen ak keneen bu waxee duñ ko déggee noonu dañuy jàpp ne ñii ñoom am nañ la ñuy am lenn mais dafa war a am koo xam ne nii dem na ñëw toog wan leen ay preuve wan leen conséquences yi nekk. comme man ma ne leen man dem naa ñaar yoon lii at lii moo ci am. képp koo xam ne nii yaa ngi duggaat ci géej gi bu yeboo nga xool li ngay def xam naa ne jànguma mais am naa xel moo xam ne nii xam naa fu may jaar ak gars yi ba billaahi képp ku sa xel nekkoon ci yoonu Espagne bi di nga ko jël toog def toog suñu réew fexe koo liggéey parce que boo xoolee ñiy dem ñëpp ay ndaw lañ. am na si ñoo xam ne nii buñ buñ buñ buñ buñ jàngee xasaayit buñ yuuxoo ci gaal rek da nga naan déedéet am na ay jeune talent yoo xam ne nii maanaam tey fi tey ñëpp dañoo waroon toog pour tekki ci réew mi comme li madame wax léegi sukkat réew mi xam ne ñun réew mi ñoo ko mën a doxal parce que du mag ñi mag ñi seen wàllu wéy na ñun jeunesse bi ñoo mën a ñoo mën a suqali Sénégal ñoo mën a tax jaayante Sénégal dem marocain yi boo àggee nga xool leen ñoom la ñuy def nga xam ne ñii tey fi tey ñoo bëgg mu jëm jëm kanam ñëpp dañoo booloo doon benn liggéey